li sant bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ñëpp ci internet bi di bëggee waxtaan wi di sant ñi nekk ci diaspora bi ñu nekk ci biir réew mi ak li ko wër fi waaye mën a nekk rek ñu ngi lay jox suñu loxo xol di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, tey nag ñu ñëw ak yéen ci suñu juróom-ñaareelu tomb bi ñu leen jagleel ñu jox ko koo xam ne yàlla jox na ko cër bu mu joxul góor ñu jigéen jigéen di lu am solo ci lislaam ndax dañuy wax ni diine mënul taxaw su fekkee jigéen ñëwul ndax dangeen ci yàgg jouer rôle boo xam ne ah fa tabaarakallahu ahsanal xaaliqiina kenn mënul dem bàyyi leen gannaaw kon mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci internet bi ñëpp di ay jigéen ñi ngi leen di jagleel suñu jataayu tay bi yàlla jox leen cër boo xam ne nag joxu ko góor ndax alquran li muy tedd tedd ak li muy rëy rëy yàlla dooleel na góor ci kaw jigéen waaye yëkkatiwul aw saar tuddee ko góor te dañuy wax ni kilifa goo gis ci àddina buñ ko toppee aslan jigéen ay juróom ndax yàlla bi mu bëggee ñu bari daf ne inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu mais li taarafu boobu kese doyul daf ne inna akramakum inda allahi atqaakum Euh, te dañuy wax ne jigéen mooy aslu àddina nag ndax aljanna bi ko yàlla bindee su fa dugalul woon jigéen bala fa xew xew fa ñu wàcc ci kaw suuf mën a jurante bari kon du sotti ndax yàlla nee na maa ngi leen bind ci diggante góor ak jigéen jigéen nag am rôle bu rëy ci lislaam boo xam ne sax daanaka mën nañu ne xaw tuuti góor mënu ko am ndax bi sallallahu alayhi wa sallam di doog a débuté bu fa fekkoon jigéen ju yaafus lam doon woote du dem waaye daf fa fekk jigéen ju brave joo xam ne daf ko daf ko daf ko daf ko daf ko épaulé may ko doole sayidatuna xadija radiallahu anha moom ni ko yàlla bindee woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu bëccëg jotee service am moom mooy doon góor mooy yëkkati alalam def ca mooy waaxu mooy dugg ak génn moo note jaam ñi moo leen di fay mooy jël mbindaan yi lépp service su kër gi moo ko yoroon bu guddi jotee mu wëlbatiku di soxna rôle boobu la yoroon ci lislaam yonent bi woote sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna xadija dalal ko ndax bi muy jógee xaaru xiraa ñëw ànd ak njàqareem gu metti googu bi mu see def ne ko wallahi laa yuxzika allahu fi daarayni yow daal seet naa ko seet ni nga baax baaxee sa jikko ju baax ji nga yor ku nekk bëgg mel ni ku nekk bëgg laa jur man daal maa ngi seede ci yàlla ne yàlla du la toroxal mukk ci àddina ak àllaaxira loolu jigéen ju baax moo ko man waaye jigéen joo xam ne dañuy wax ni euh, bu sa borom kër wàcce ñu indil ko facture ndox wala facture courant li ngay njëkk def mooy bala nga koo taaj añ bi facture bi nga koy njëkk a tegal su boobaa bu appétit bi coupé yow am nga ca am nga ca part de responsabilité moo tax jigéen du teeroo noonu borom këram teyit nag Euh, dafa am ñu bari ñuy wax ni jigéen yàlla nga ko bind ci faar ni faar dëngee euh, ni lañu ñu dëngee ñu ne xadis la waaw waaw waaye nag dañuy li ne jigéen du faar jigéen mooy kenn koo xam ne benn kenn la ci lislaam bu am doole ndax bu ñu mosaan tëgg xare ci lislaam jigéen ñi ñoo daan yor njaq yi di may nit ñi ñu naan ku ci mos a am blessure jigéen ñi ñoo lay téye di la faj jigéen nag yor ci lislaam rôle boo xam ne góor sax amu ko euh, li góor di foor foor yàlla jagleelu ko jéggal ko julli te jigéen am na ñu jagleel ko julli ndax bu gisee baax dana fóot fóotam su paree fan yu toll ni la mu leb ci weeru koor mu fay ko waaye bor ya mu amoon ci julli du ko fay li ko waral nag mooy sayyidatuna Hawa bi ko baax dabe ci julli mu laaj ko dinaa Adama Adama daf ko laaj Jibril Jibril ne ko na dog julli gi mu dog julli gi ba set mu ne ko na commencé waat julli mu laaj ko ndax damay fay mu ne ko doo ko fay bi ko yëf yi dalee ci koor mu laaj ko ko mu ne ko na lépp fan yu toll ni la mu gis baax waaye su baax ba setee daf koy fay kon jigéen yàgg naa am rôle bu rëy ci lislaam boo xam ne da ko taxawee tey nag mbokk yi eh, bu dul woon jigéen gu baax dañuy wax ne góor gu baax du am moo tax ñu ne defar benn jigéen ba mu baax moo gën defar junniy góor yàlla ndax benn jigéen bu bon su duggee ci biir ay góori yàlla bu leen seytaane manee tuuti mu yàq seen liggéey yépp waaye benn jigéen bu baax mën na dugg ci société jur fa ay ay góor yàlla yu bari euh, ñu seet ko ci sett ci benn jigéen muy sayidatuna asiya bintu muzahim di soxnas firawna laanatullahi alayhi euh, firawna yàlla dafa dogaloon mu am soxna soo xam ne soxna si dafa baax dafa jullite gëm yónnente yàlla Muusa ndax bi ko yàlla bëggee yónni mu dugg ci pale bi yàlla dafa tàbbal ci xolu ndaw si cofeel goo xam ne kenn xamul nu mu toll ndax yàllaa ko wax ci alquran ne ko wa alqaytu alayka mahabbatan nii man yàlla maa jël cofeel coppateeku ci sama bopp sànni ko ci yow bu ku la gis bëgg la bi ko firawna naree rey ndaw si def ci jafandu ne ko asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan xëy na mu jëriñ ñu nañ ko téye ci pale bi gannaaw yow amuloo doom nañ ko téye ci pale bi def ko fils adoptif bu ëllëgee su màggee mën naa yor sa nguur gi mën a wéy ah bi ci desit nag mooy ba Égypte de Égypte ba léegi Firawna niil bi musul jural kenn doom ku dul yow moo tax yonent yàlla Moussa ba demee ca téere yu bari dañuy wax ne amul tur dañ ko dàkkantale ci xale boo xam ne mi ngi juddoo ci diggante ndox ak garab ca la yàlla defe loola ca moom jaarale ko ci jigéen te Moussa ay karaamaam li muy rëy rëy rëy yàlla nga ko jaarale ci yaayam kon jigéen yàgg naa am jaloore ci lislaam Euh, bi nga xamee ne garde firawna yi dugg nañ ci kër gi di fuyete kër gi di seet xale bi ñu leen wax ni juddu na ci kër gi te moo war a folli nguur gi bi ñu duggee di ko seet yàlla daf ko sànni ilham fekk ko muy togg mu ne ko sóobal xale bi ci cin li mu sóob xale bi ci cin li yaay ju dëgër moo man loolu waaye jigéen ju topp ndigalit moo man loolu bi ñu dikkee visité kër gi ba sonn gisuñu ko ca la ñu génn mu yuuxu ne sama doom ja ñor na bi mu ubbee mi ngi fekk yonent yàlla Moussa alayhi salaam mu ngi sex baaram bi di ko màcc loolu jigéen moo ko defoon ci lislaam kon mbokk yi ñu seetluwaat ni jigéen am na rôle bu rëy a ci lislaam euh, naam mos dañuy seet ne sayyidatuna Maryama jigéen la waaye bi yàlla bëgg jaarale ci moom ay karaama dafa jaarale ci moom la mu jaarale mooy lan mooy dafa yebal ca moom sayyiduna Jibril alayhi salaam mu injecté ko leeru suñu borom subhanahu wa taala ca la sayyidina Isa alayhi salaam juddu bi nga xamee ne ëmb na ko dikk ci pénc mi dañu ne ko yaa uxta haaruna maa kaana abuki imraa saw in wa maa kaanati ummuki baxiya yow Mariama yow daal jàpp nañ ne tey yàq nga seen deru askan wi parce que def nga fi lu kenn musta def ci juddu bi mooy indi nga fi biir boo xam ne kenn xamul koy baayam waaye yàlla natt ko ca biir mu jëfandikoo fi ñu toll tey muy weer woor woor weeru koor keroog bis boobu daf ko jàpp koor mooy inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al yawma insiya keroog sayyidatuna Maryama alayhi salaam alayha salaam dafa jàpp koor ne leen wax leen xale bi man damaa jàpp koor bi sub tey moo tax jigéen yàgg naa def rôle bu rëy ci lislaam euh, naam moos jigéen su xamoon cër bi ko yàlla jox wax dëgg yàlla kon dañu wax sax ne xaw tuuti kon mu xaw a jafe ci góor ñi pour ñu jot ci ñoom ndax jigéen mbokk yi Euh, balaa société taxaw jigéen dafay taxaw te jigéen dafa am rôle bu rëy ndax yàlla bi muy wax ak waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne leen yaa nisaa annabii man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi koo xam ne yaa nisaa annabii lastunna ka ahadin min annisaai in ittaqaytunna falaa taqda'na bil qawli fa yatma'anna alladi fi qalbihi marad yéen ñi nga xam ne yéenay waa kër yonent bi na ngeen góorgóorlu ba bu leen oyofal seen baat na ngeen góorgóorlu ba na ngeen wegu na ngeen sàmm su ngeen sàmmoo day dana eh, mën a faj góor goo xam ne xool ba ràggug jigéen daf ca nekk ndax am na góor ñoo xam ne su jigéen wàccee baatam rek faiblesse la ci ñoom kon jigéen yàgg naa jouer rôle bu rëy ci l'islam moo tax yàlla dànkaafu leen ci alquran ne leen wala tabarrajna tabarruj al jahiliyati al ula wa aqimna alsalata wa atina alzakat yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ci alquran ne eh, yéen jigéen ñi na ngeen mooy tandiku taxawaalu comme ni jigéen ñi jaahiliya yi daan def di génn ci mbedd mi di wëreelu di taxawaalu te bi ci des nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci mujjug jamono ne rubba kaashifatin aariyatin bari na jigéen joo xam ne boo demee ci armoilam bu la ko ubbilee yére yi day tuuru ci sa kaw waaye bu solo da ngay yëg ne kii ko rafle la kon mbokk yi jigéen am na rôle bu rëy ci lislaam kon suñ leen bëggee yemale ak góor ñi di leen wax waxi parité ñu ngi leen di ndax ndax rôle bi ngeen am ñun góor ñi sax wallahi alazim yàlla xam na ne amuñu ko ndax yàlla mboolem li mu baaxle li mu gën le mooy doomu aadama ci kaw suuf te yàlla nga koy formé ci biiru jigéen kon jigéen am na rôle bu rëy ci lislaam yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp suñ mbokk jigéen ñi nga xam ne ñu ngi topp suñu jataay bi ci émission Shukran ci dakar midi point net ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox seen wàccuwaay weeru koor wii ñu um yàlla nañ ko tàmbalee bismillahi rahmani rahim ak gële koog alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu